Mor Ndak Tall di président mouvement xidmal xarnu bi moo delsi ci ñaareel bi yoon eh, di fas yéene waxtaan ak askan wi ci ponk yi nga xamee ni dafa yitteel askan wi te mu doon la nga xam ni fii ñu tollu ñépp a ngi ciy wax ngir rekk njariñul réew mi ñu bëgg cee wax suñu xalaat ñun itam ah benn bi ci njëkk mooy ponk bi nga xamee ni jamono yi eh, parti politique yi Sénégal ñoo ngi ci dox di ci wax ci cadre bu ñu naan dialogue politik te li ci gën a fés mooy kan mooy doon njiital opposition ak statut ba muy yore maanaam doole juñ koy yore ak kàttan buñ koy jox ba ci koom buñ koy jox loolu nag doon loo nga xame ni eh, man xidmal xarnu bi ni mu ko gisee mooy mel na ni Euh, mbirum politique dafa wëlbatiku ci senegaal ndax bu njëkkoon li ma yàgg di dégg ci réew mi mooy ki ne ci nguur gi day naan bu ñu gaaw a du yàkkamtee def élection ñi ci kujje gi di bëgg élection gaaw ci nu mu gën a mën a amee te mu jaral leen lu ne waaye waxtu yi li ñu seetlu mooy ki ci nguur gi moom bëgg naa dem élection waaye kujje gi moom bëgg nañu puus élection yi mu def doon loo xam ni askanu Sénégal war na ci xalaat bu baax te loolu ñuy tudde dialogue politique muy waxtaanukaay ba nga xam ni ñoom parti politique yi ñoo koy bokk di ko daje di ko waxtaane mu jëm ci ñun askan wi eh, li ci ëpp lu ñuy waxtaane ñoom mu moo ngi rek ci kan mooy jiite ku gi ak yan màndarga lañ koy jox ak yan koom-koom ak i xéewal lañ koy jox mu doon lu doy waar ndaxte damay fàttali askanu Sénégal ni dañoo defoon référendum boo nga xam ni dafa am ay ponk yuñ ci dugal mu boole ko ci constitution Sénégal muy loi yoo nga xam ni loolu la Sénégal di war di doxale léegi ci ponk yooyu ci référendum bi am ci benn bu am solo muy modernisation des parti politiques maanaam ginnaaw bi ñu seetloo ni junniy parti politique ak lu ko ëpp sax ay téeméeri parti politique ci réew mi ëpp na ba boole leen def élection kon dina jafe ñu ni kon nañ dugal ponk boobu ngir parti politique yi doon loo xam ne lu yanu maanaa lay doon ci ci ci ci ci ci nombre ba nga xam ni dinañ mën a dem élection ci ni mu waree te duñ yàq alal ju bëri alalu askan wi waaye loolu bañ ko wootee ci référendum ba ba dugal ko ci constitution bi ba fii mu ñuy wax muy loi constitutionnelle man li ma jaaxal mooy dialogue politique boobu ñuy wax parti politique yi ko séq ba léegi waxuñ ci loola lii ñuy wax nag muy statut ak kan mooy jiite kujje gi ma jàpp ni itam kon loola moo ko war a gën jiitu ndax loola ci la ñu mën a sukkandiku pour def élection yoo nga xam ni danañ mën a ràññee kan mooy doon jiitu kujje gi ak ku ko doonul waaye loola kenn waxu ci te loola buñ ci waxoon mu doon loo nga xam ni tey jii ginnaaw bi nga xam ni seetlu nañ ni élection euh, parti politique yi yépp dañoo dajaloo kenn demalatul sa bopp ci élection ñëpp ku ci nekk yaa ngi ci benn coalition ma jàpp ni loolu bu ñu ko bëggee na màndargaal dina yomb ndaxte bu ñu nee rek lu toll ci fukki parti politique bu ñu matee ab coalition rek nañ leen def muy benn parti loolu déjà dina wàññi parti politique yi te bu dee askan wi rek moo leen tax a jógal benn parti boobu bu ñu am ne démocratie ci seen biir bu ñu liggéeyee def ko muy benn parti ñu wax seen programme réew mi dina mën a ràññee bu baax. kan moo ci yore ay njariñam ba tax dana xam fu muy woote ëllëg bu loolu weesoo ñooy ma bëgg wax ci mbirum inondation yi inondation yi bërkaati dem mu matul semaine lañu dëgg suñu président de la république président Macky sàll wax lu mu def ci inonda ci mbirum inondation yi ba am yaakaar ci ni inondation dootu am ci réew mi waaye ñu seetlu ni ñett fan lañ ci teg rek taw bi gën a yokku inondation am ñun xidmal xarnu bi gis ni kon ginnaaw li mu ñu dégg ni moom lañu ni mu def ci inondation yi muy sept cent cinquante milliards def nañ ko ci te teewul mu am te loolu taxoon président yaakaar ni kon loolu dootu am ndax liñ ci def li ñuy ñaan le président Macky Sall mooy na roy jenn jikko ci Touba ca kanam muy sos li ñu naan bureau vérification et control boo nga xam ni day topp kuréel goo nga xam ni rek yoroon nekkoon nga ci inondation yi wala ci lu ko jëm yaa ngi ci doon liggéey ngir ñu saytu sa liggéey ndax xayma liñ la jox ci alal foo ko dugal noo ko dugalee naka la demee defal ko ci rapport bu mat sëkk te it loola bu génnee ba ñu situer responsabilité yi xam ni kat luubal nañ ci alal wala def nañ alal feneen ci alalu inondation bi feneen foo xam ni du woon wàllam moom président Macky Sall mu jël nag ay matukaayam ah ndax sanction positive ak sanction négatif day am cim réew ku liggéey lu baax ñu war la sanctionner positif maanaam ñu ñu ñu ñu gërëm la jox la cër bu ëpp bi nga yoroon waaye ku luubal ba tax inondation yi toll fii mu toll tey ñu teg la ay daan ba mat sëkk te nangu alal joo mas yore ndax delloowaat alalu askan wi fa mu nekkoon ndax ku ne leer na ne 750 milliards yi président joxe pour ñu liggéeyal ko ngir bañati inondation buñ ko defoon ca dëgg-dëgg inondation dina wàññeeku wala dina jóge surtout ci capital bii di Dakar loolu la ñuy ñaan président Macky Sall mu def ko ndaxte nag jot na ñu roy nag ci développement communautaire bi nga xamee ni association bii ñuy Touba ca kanam mi ngi koy def te mu jur ay njariñ yu ñëpp teg seen bët kon kuréel gu mel noonu guy saytu liggéey bi lañuy ñaan président Macky Sall mu defal loolu bu loolu weesoo ginnaaw bi ñuy coow mbirum suuf si ci Sénégal mu lëmbee dëkk bi eh, dañoo dégg fan yi ñuy wax américain boobu nga xam ni ci ñun la askanoo américain la du sénégalais loolu bëgg naa mu leer ci nit ñi mu sant caam te ñu koy wooyee ci turu wuñ naan ay kon americain boobu dégg naa ni ñëw na fi ñu am di laaj suuf suñ ko jox ngir mu def fi ab dëkk boo nga xamee ni ay mbokki américain yu ñuul yi dëkk Amérique lañ fay jëlee indi leen fi ñu dëkk ca dëkk booba di doxal seen économie bopp di jub di jub di di jëfandikoo itam seen jumtukaayu bopp ba ci seen alali bopp seen xaalisu bopp boo nga xam ne du bokk suñu xaalis bi ñuy xam ñun fii muy CFA bi ñu yore loolu nag bi ñu ko saytoo xool ko bu baax a baax a baax bëgg nañu président Macky Sall tey ci loolu bu baax ndaxte ci ginnaaw kooka am nañ leneen ak leneen ñeneen ñu ca ñoo nga xam ni kat seen pas-pas ak seen yéene ak seen jëfin wuute na ak bëgg-bëgg ñun senegal ñi nga xam ne dañoo gëm diine gëm aada gëm bëgg lu baax te bëgg a musal suñu xeet wi ak suñu njaboot yi ci lépp loo nga xam ni jikko yu yees la yu ñu bëgg indi ci réew mi ñaareel ba yi tamit ñu jàpp ni bu fekkee ni kooku am na alal ba mën a def ab dëkk bu mel noonu ni ñu ko wone ay milliards mu def ko ci ca dëgg-dëgg bu dee rek pour jariñ réew mi moo ko tax a jóg fi ko réew mi gën a soxlaa mooy bu ko ni woon dañuy koy defal ay hôpital yu mucc ayib wala mu ni dañu koy defal ay jàngale jàngkaay kaay yu mucc ayib yoo xam ni dina tàggat suñu doom yi ngir ëllëg wala mu ni dañu koy defal sax ay petite industrie maanaam ay jumtukaay yu suñu jigéen yeeg suñu ndaw yi man di liggéeyee yuy transformer yi fiy yi ñu fiy bayee sax kon ca dëgg-dëgg dañ koy tàccu dañ naan ko bravo waaye projet bii moom neexul ba neexul mais gënaluñu ñun xidmal xarnu bi ba suñu xalaat mooy bu ñu sañoon président Macky Sall nga proposé ko ci yii ma wax yi ñu gënal yi ñu bëgg bu bëggee jàppale Sénégal mu def ci alalam te bàyyi projet boobu ndax gënaluñu te day yokk rek coowul suuf li nekk ci Sénégal waa ginnaaw loolu bu loolu weesoo eh, man di bu murit gëm sëriñ Touba xaadimu sol dëkk Touba eh, dafa am loo nga xam ni bëgg naa ñun mbokki taalibe yëpp rawatina ñun mbokki taalibe yi dëkk tuubaa it ñu bàyyi ci xel ba ñenn ñi nga xame ni eh, sama classe intellectuel gi nga xame ni dégg nañ ni Serigne Touba fii nee na ku fi amuk pucc pujj pujjub néeg bu ne mooy doon sa seede yamal xiyaam ba tax na képp ku ci am alal di nga fexe ba am fii ak kër boo ci dëkkul sax nga xam ni màggal ba màggal nga cay ñëw waaye am nga kàttan bi nga def kër gu rafet fii ci Touba di fi ñëw ba màggal ba màggal ma leen di tudde taalibe weekend taalibe yooyu bu ñu amee ñu làqu ci ñoom mën nañ leen a wax loo ne loo nga xam ne du méngoo ak aaday murit ba ci lii nga xam ni màggal gi coow lu ci am lu ci bëri ci ñooñu ñu mel noonu lañ ko jaarale kon ñun nañu ràññee ndongo yi taalibe yi murit yu dëggu yi ak ñi nga xam ni dañuy euh, taalibe yi weekend lañu nga xam ni li leen indi ci yoon wi te loolu yàgg na depuis jamono yi ku tedd kii li leen indi ci yoon yi mooy àdduna ni mu ko waxee woon ni àdduna de ku ko yittewoo it boo ñëwee ma jox la ko ndax àdduna wutali na ma te soxlawuma ci dara eh, ñooña nga xam ni nag seen xel ci àdduna rekk la yem ñu wut si àdduna fii ci tuubaa nañ leen ràññee ba bañ leen a topp ci seeni wax ak seeni xalaat ndax ñene ci seeni ginnaaw bokkuñoo ñi nga xam ni ñoo bëgg a dundal yoonu Serigne Touba Xaadimu Rasuul wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراضي له شكوري على حياتي عبدا قديما فاز من آياته